Cheikh Ibra nee na ku am na ma gërëm ku ñàkk na ma xarab lépp mën a daane a ah, doom yow mal xiyaam day soppiku la fa ñëpp baaxoo waaye man Ibrahima Fall seen moom mii ni ma mel fii laay mel foofa ku ma ni yow a ma la mën a daa génn ci Touba Fall bis jàpp ndigam tim fere yi di leen xool ba mu yàgg mu ne a ah, doom yàlla ajuma la tëgg gaaw mu xumb lool dibi lamb ja tas wax ko ñetti yoon ne a ah, du ngeen ma laaj ku daana ñu ni faal ku daan mu ne di wax ku daan sax duy teggin waaye balaa ma jot a seede yàlla nee na ma jërëjëf ñetti yoon rasulullah sallallahu alayhi ma jërëjëf ñetti yoon sëñ bamba ni ma jërëjëf ñetti yoon keroog laa raw bët raw xel ah doom man xel du ma daj bët du ma gis ni dënd ba mu yàgg mu ni man faal dañ may yëg daan ne lu nuy yëg nag kun ko yëgalun loo koy yëgee am na ko masa dajeel ci njaareem ni ko a ah, doom dégg naa yaa gën a ci gox bi alxuraan mu ni ko faal noog ma koy bàkkee mu ni ko a ah, doom lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna noo ko déggee mu ni ko faal sa borom nee na noo baax te dañuy joxe li ñu a bëgg mu ni ko ana noo ko dundee mu ni ko yàlla ma ne na ma jamono danaay gàtt ba mat tudd mat tabaski ma jox ko ba ma jox ko ci yoonu yàlla gileem ba mu ma jox ko ci yoonu maam dara faal di ko xool ba mu yàgg mu ne ko ah a sa nopp ci yoonu yàlla mu ne ko ah mu ne ko sa tànk bi nag mu ne ko déedéet ko kon sa bopp nga gën a bëgg demal jox ko sëñ bamba boo bëggee baax lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuuna lii lay tekk en 1900 la tudd Cheikh Aliou Fall Mbawar 1900 net ca Tassinère Gandiol tudd ba noppi na ah ndax xam ngeen ku ko tuddee ñu ni teg mu ni Seydina Ali karamallahu wajhahu laa ko tudd maam Serafal ni doom ndax xam ngeen lu tax ma tudde ko ko ñu ko faal bëgg nañ ko xam mu ni dañu xaré ba dar fukk ak juroom ñaar ci koor ba xaré bi jeex ma melni kuy dalu sayyidina ali dañal aw fas ba tolloog man ëyu ma xol ko mu ni ma ana yow kan neena ma acc sama loxom ndey jor bi mu gis ñu bind ci sama pokatan mi abori jallulahi bayu goor ñay fanani ci yalla mu ni ma yow abori jallulahi ma ngi ah, ak yow kolere kolere sayyidina ali ca badar mo waral mu tuddu ko sama domgi. ji bàyyi ibrahima caam nee na bàyyi ibrahima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 يعني بما سانجي شيخ برمانتو مي مروغانتي كو دادي ملني كو خخي ni ma ana kooku nee na ma ne ko ma ne a Thiam Fall ma a ah Ibrahima Thiam ma ne ko Fall mu ne ana ni gaa ñuy jublu bu ñuy julli ana penk bi nee na ma ne ko Fall ni nga jublooy penk bi nee mu bàyyi manto mi mel ni kuy dellu ginnaaw ni ma ah Ibrahima Thiam négul ma seet daal jël loxo yi moom Cheikh Fall caw ko ci ngelaw li waaye Ibrahima Thiam nee na moom Cheikh Fall dóoree loxo ci ngelaw li damaa dégg ci sama nopp lu ni keng mu ne ma ah Ibrahima Thiam wax nga dëgg sama loxo yi na ci kaaba gi ki taxaw ci raayub njaareem bi dóor loxom bi eh, ko bëggee yab ko bëggee